Thiénaba TV mooy suñu télé. Thiénaba TV mooy suñu télé. Thiénaba TV mooy suñu télé. وقل في العظيم سيدنا محمد الشفع المشفع في المعشر وعلى آله وصحابته وعلى خلفائه وخلفائهم إلى يوم الدين ورضي الله عن سيدنا وجدنا العالم المجاهد wal aamilul muxlis aseyxul wali Ahmadou Ndack Seck wa ala kulli man xallafahu fi wilayati amri daaifati wa yadu llah xalifatul aam almarja alqurani alwali almaktum Cheikh Ahmed Tidiane Seck ayoha alixwatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ayoha alxudur alkarim nashkurukum ala xusni ijabatikum ala ixtilaafi mashaaribikum وجنوك الوحيد رفع الراية راية الدين وحدة هذه الأمة وبعد إن الإسلام أولى الوحدة الوطنية اهتماما بالغا من خلال دعوته وتعليمه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة كان أول اهتمامه بناء المسجد دارا للعباد التوحيد وتوحيد جمع المسلمين suma wa axaatu lati abramaha rasulu lkarim sallallahu alayhi wa sallam ma asqa bihi walti kaanat asaasan lilxubbi wal iqaab suma kaana wasiqata almadinati allati kaana asaasu asaasu li tarsixi alwaxdati alwataniya wa taayusu salim fa jacala mujtamaca almadinata mujtamacan waaxidan min almuslimin wa gayri almuslimin falwaxdatu فالوحدة فريدة شرعية لازمة بنص الكتاب والسنة قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تنازعوا فتفسدوا وتذهب ريحكم وقالوا كونوا عباد الله إخوانا إن القوة إن القوة والفرحة ضعفة واختلاف اللغات والألوان آيات من آيات الله لقد تجاوز السنغال ولله الحمد أزمة كان كثير يظن أن الوحدة الوطنية ستتفرق ولكن بفضل الله ثم بالدعوة ونداء أهل الدين وزعمائه وعلى رأس فضيلة الشيخ أحمد تيجان سي سارت السفينة بمن فيها إلى البر الأمان وهذه هي رسالة جانب السيك هي الوحدة الوطنية الحق العدل والتشامل هجر سيد الكلام واحترام المتبادله من هذا اللقاء يدعو السنغاليين جميعا من مختلف أديانهم ولغاتهم تلاقي إلى بناء والسلام والإخوة ندعو أهل الجنوب خاصة إلى تمسك بالدين على شعار العلم والعمل والعدالة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dinaa bi sante yàlla yàlla mi nga xamante ni jël moo jël diine def ko muy buum gi nga xamante ni moo jokkale jul yépp mu digal ñu ñu bokkoo ak di dimbalante ci yàlla kese tax mu digal ñu ñu bañ a tàqalikoo te bañ a xiiroo ñu ngi julli ci yonent bi nga xamante ni nii mooy nabiyu rahma wa rasuli salaam sa yonent bi nga nii mooy ba xol mooy borom bi yonent mooy borom jikko ju tedd ji ñoo ngi julliwaat ci yonent bi xam ne ni ëllëg bu yàlla songee moom kese moo ñu mën a ramm yàlla yàlla boole ci ñu xam ci yonent bi leen di ramm sallallahu alayhi wa sallam ko defee ñoo ngi ci saxaaba yonent bi ak ñi nga xamante ni ñoo doon mbóot bi ba fi ba fi ba fi ba fii ñoo ngi doon leen ñaanal suñu góor gi suñu maam gi boroom xam-xam bi ki nga xam ne dafa tayle lewal bokkam di jihaad ci soo yoonu yàlla ki nga xam te liggéey lépp daf ko sellaloon wàlliwu mag wa ñu koy Ahmadou Ndack Seck yàlla yàlla xëy na Ahmadou ak ñi nga xam te ne dañoo doon lu mbóotam nekk ci di ci di ci yëngatu rawatina suñu baay mu tedd bii kàggu alxuraan gi wàlliwu nëbbatu yi mooy Baay Cheikh Ahmad Tidiane Seck Baay Cheikh yàlla na yàlla doole sàmm Seck moo su ko defee ngi fi teew dañ koy tënk rek ñoo ngi ñaanal ñëpp. xam nañ ku ci nekk da ko dañ ay fasantikoo gox ngay jógee ak ku fekk ak ku nekk fa ngay naane ñoo ngi sant ñépp di leen gërëm gis nañ seen taxawaay ku ci nekk bëggoon nañoo jaar ci saw sant waaye yàlla mex tax ngay def yàlla na yàlla fayal yoon su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo njëkk jàngale mbokkoo comme ni ko panélistes yi waxee su ci jógee nag ñoo ngi xam ni professeur Lamine Sall junj na ko ci biir ci biir ci bi doon def ñëpp xamoon nañu ni Sénégal élection yi di ñëw yëpp jàpp nañu réew mi na tàkk waaye góor yàlla yi ak xulafaa yi nga xam te ñoo fi nekkoon te kenn jiitu ci Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck mi ñoo ñaan ba réew mi ñu dégg ba dara yëngatuwul kon nag ñooñu war nañu joxe beneen yitte boo xam te ni dell wala li xam ne ñoom ñi dañoo bokk xam ne ñoo koy régulariser fa tabarakallahu ñooy nag loolu buy am dafay amee ci dëgg ak équité ak tolérance ak société mënta dox te tout loolu tënkuwul ci loolu ci yow ñu bàyyi yenn kàddu ñaar yi nga xam dañ ko yóbbu ci presse bi bokk na ci li nga xam te moo mën a fiyee soosale ay xol te Sénégal fii ni li mu tënkuwoo fii ci am na yoo xajul ci suñu biir ndax dañoo séentu ci suñu biir ba ràbbaloo ci yow mag ñi tën tënkal ñu ko ba lii mën a nekk tey fa tabaarakallaahu ñoo ngi ñaan sénégalais yëpp di woo sénégalais yëpp di wax ni ñu jàpp joo bokkoo jàmmoo ngir yàlla ak suñu suñu société bi ñu nekk rawate waa Thiénaba nañu delluwaat ca la nga xamante ni moom la am jàngale woon te mooy àll wa àll wa allahu akbar bàyyi lañ fa gis boo xam ne suñ ci jaaree dañu am ay teraangay àdduna dañu am teraangay àllaaxira du ma jeexal nag te gëruma ñi nga xam te ñoo seq taabal ji professeur Daouda li ma koy wax sakku juur dama koy bàmtu da moom daanaka dañoo defandoo lépp maa ngi lépp maa ngi moom Ndiaye Amin Sarr du ma ko sant dama koy gërëm waxoon naa ko fii daaw dama koy répété waat man a amul du wax lu ma gëmul kenn amul maqaama ma wax lu ma gëmul ndax sax bàmmeel koo fekk Lamine damaa yar def ci man lu bari musuma def lu ma yi man mën naa taxaw ne Lamine Sarr mii wallahi azim musuma def lu ma naqari te ñoo nekkoon ci daara ji lu ma bëgg sa bëgg Lamine Sarr defal na ma ko waaw lu ma mas a bëgg naq naa ko ci kottam ne lu mas a defal Lamine Sarr defal na ma ko kazaalika daanaka soleil bi jàppee bis bi ba léegi noppalul saa foo koy guddi di bëccëg naan loo bëgg ñu def ko dañu ànd ak xol bu tàlli Ibrahima duma ko Ibrahima moom boo nee maa am mari mooy Ibrahima boo Ibrahima mooy maa am mari ndax ànd boo xam ne ni fanweeri at du bu sow fanweeri at bu ñuy defee dañoo gis ne ñuy ànd déedéet Ibrahima sow fanweeri at lañu ànd ci ren fanweeri at ak benn ci lañu ànd ba ma koy xam takkuma soxna damay xam Ibou Sow ñuy ànd takkuma soxna waaye benn xar kanam laa xam ci moom man natt ko natt bu nekk nag waaye du ma ko mën a jàpp ndax jikkoom ju tedd waaw kon dama koy ñaanal yàlla liggéey bi lépp moom moo ko gàtt di ko coordonné du aussi fii ak ñu ko bokkal njuga yow diina jege liggéeyal ndeg yàlla yàlla fay la bàjjan sekk moo di dañuy ñaanal yàlla sekk yàlla yàlla laa sàmm sekk moo di gis nañ taxawaay ñoo ngi ñaanal di nuyu waaye moom lay mujje di wax ni bàyyi bu moom fii nii bàyyi boobu rek la ci yow waaye di ñaan suñu waajur nga xam te moo nekk ci kër ga bi soxna Abou Sarr yàlla na yàlla doole koo sàmm yàlla na yàlla doole koo yiir may ñëw ci sama goro yii ñoom tamit mënuma leen a bañ a sant ndax maa ma tey ñu ko bàyyi woon a kese dina metti ci moom waaye lépp ñoom ñoo ko engage seen i poos dalal gan yi jëlee seen i teraanga teg ko ci seen i loxo kon man kumba ak ñi nga xam te néegum ndeyam maa leen di sant maa leen di gërëm maa ngi gërëm sama xar yi nga xam te ñoo nekk ndoo fii ci Ndakaar ñu di ma wéttali wéttali nga fii ne jéppante wuñu ndax wéttali nga dafa nekk yàlla kese dafa tax kon maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp fi may tëj nag mu ñor ma torop xam nga Baye Cheikh Ahmed Tidiane su ko neexoon dina yónnee te bu yónnee sekk dina ma doy Baye Cheikh ku mu yónni woon ci man ku mu yónni fii rek dina ma doy waaye sagal gën ñu sagal la jóge canaba dagg ay yitteem ay lawraatam yëpp daanaka fi tey ñoo ko occupé waaye lan bëgg bopp bëgg xale yi bëgg ñu ñu ñu ñi woo mu xool ñu bëtu yërmande kon danga ko war na fekk fa mu nekk ñu di ko defal teraanga di ko ziyaar di ko defal teraanga ñu am boo xam opportunité boo xam ni dafa waaxu ba ñëw fii te boo ko fekkoon cana ba ñu ko teral teraanga jooju nag man maa mu mari sekk damay wax ni kenn duma ci jiitu juga teraanga ji laa la ma fii mbalaat bi képp ku ko bëgg am teraanga fekk ma teraanga teraanga ji ma teral bay Ahmed Shakir asalaamaaleykum képp koo xam ni gëm nga ni boo ci tàbbalee naa doon sa njot ci aljanna képp koo xam ni gëm nga ni boo ci tàbbalee saw ñaq man naa demal ba jural la bi ziyaari Seydina Muhammad mbokk yi képp koo xam ne boo ci tàbbale saw ñaq mën naa dem ba jural la sa doom ju jàngati dana réussir mbokk yi képp ku ci tàbbal saw ñaq te gëm ko mën naa dem ba bépp aajo boo war a amati mooy aajo boo xam ni jaaxal na la boo xamoo noo cay def boo ko tàbbalee lii ci jëm ci Baye Cheikh mën na laa jural teraangay àdduna ak àllaaxira képp ku gëm loolu kaay fekk si Mame Marie fii allahu akbar xoolal jigéen ñi lay ndeysaan kenn ku nekk man sa taxaay ci tariixa bi lépp mat na sasoo dafa gërëm ne la te moo na Tijaani maam bu ne woo dara di wax ngir sa taxawaay ca Dakar baay Seex Al Xalifa kontaan na sa taxawaay ko te moo di quraana maam say wax ak say jëf te di mag sa wasiila ba gërëm na la te moo di Seexu Canaba maam ba gërëm na la te ci diine jeey daag te mooy bras di maanaam sa de protocole waaye yaakaar naa ni ñii nga bokkal lii moom bett na leen lool ci yow macha allah mooy nag ay xasida yu bàcc saar bind di jarbaatu maam amari ne ko yëkkatil ma ko sama liggéey kon loolu dafay faral